di kontaan si seen série bi neex na lool épisode euh, cinquante six bi neex na torop man de li jëlikat yi dund noonu dama ko dund vraiment seen seen bi am na solo parce que réalité yi di dund moo ngeen di joué ci film bi am na solo torop torop torop parce man kaa bi jalikat yi dund ne si laay dund parce que man copain bi ma aan musul am jabar et man tamit dama sey ba divorcé am do am ay doom mais vraiment ñu ñaar ñëpp dañoo tiit tellement ko dañuy ragal que ni bis buñ demee ba ñoom ñu xam ne man am naa doom est-ce que dinañ ma mën a accepter ci seen famille parce que benn jour sama xaaritu copain bi dafa doon takk jabar mais ki mu doon takk dafa am doom dañ ko trompé loon mu am doom léegi bi ma demee ci mariage bi si si lendemain ba bi ma demee seeti sama yaay copain bi ma ne dañu toog di waxtaan dama ñëw rek mu ne ma yow diw dégg naa sa série bi ki takkoon dafa sama goro moo ko wax de mu ne sa dégg naa sa mu takk dafa say tas ba am na doom ma ne ko non non kooku mosul de mais am na doom rek sama njëkk bi mu ne loolu rek moo mën a nekk xanaa diw de yebuñu ba muy takk koo xamante ni dafa am jëkkër ba am am doom te man it bu fekkee kii daf koy bañal doomu jàmbur wala mu koy bañal frère jàmbur est-ce que man mi dinañ ma accepter après wax naa ko sax sama copain bi mais. moom wax naa ko pour mu wax ko yaayam pour mu waxtaan ak yaayam sama kaa parce que lu ñu gën a dem di gën a bëggante mais moom dafa ne dafa ragal a wax yaay ji parce que moom mënul imaginer yaay ji ni du ma bëgg vraiment yaay ji moom won na ma mbëggeel lu muy jëndal doomam daf ma koy jëndal mais li ma ragal mooy bu demee ba si biir xam ne man am naa doom est-ce que dina ma accepter est-ce que famille boobu dinañ ma accepter te man ak sama copine def nañ des années des années presque def nañu cinq ans daal waaw parce que benn weer moo si manqué moo cinq kon xam nga loolu yàgg na vraiment tey moom épisode bi daf ma laal tellement je suis tellement triste vraiment pour Jarika ndax loolu metti na trop mais dina baax incha allah na gëm boppam bu baax rek te xam ne jigéen moom dogalu yàlla fu nekk lay jógee que jigéen moom tànk yaa ngi gëm sa bopp rek ñàkkoo dara daal gëm sa bopp rek am solo te tamit ki nga nekk mu bëgg la soutenir la dina si am solo parents yi tamit dañu war a bàyyi lool bu baax xam ne bëgg rek am solo parce que mën nga dem takk koo xamante ne xale bu tuuti la jànqale mais bu ñëwee du sëy te sëy moo koy yàlla moo ko dogal moo koy jeexal xam nga ni taxawaalu dafa doon sëy mu tas kon am na droit tamit dundaat beneen mbëggeel mais société bi moom vraiment ni ñuy réfugié famille yi nga xam dañoo sëy ba tas am ay doom vraiment ah na waar daal vraiment kontaan naa trop waaye taxaw naa triste daal. salaamaaleykum wa rahmatulah wàllu xew TV seen mbokk la Mouhamed Gueye Paris di leen nuyu yéen ñëpp nag mais di suivre maîtresse bu baax. Eh, di ko jàngat tamit aussi mais dafa am lu ma jaaxal nag ci maîtresse mooy que ni eh, Moustapha ak Racky seen rôle ci ci maîtresse lan la ñu mën a jàngal man loolu laa bëgg a xam su fekkente ni mën nañ ma ko expliquer au moins parce que man ba léegi nii suivre naa leen mais gisuma ci gisuma ci lenn lu nga xam ne war nañ cee mën a jàngat parce que eh, Racky man bu ma gisee ni génn na kër yaayam ba pare encore que fi mu jëm Euh, ndax Moustapha man gisuma ay parents am ba tey mu dëkk ak ñoom léegi ndax moom kon fi mu daw jëm foofu làquwaay la ak ndax wéeruwaay la aussi ba tey parce que ku nga xam ne euh, man gisewuma ko ak benn famille du yaay du baay euh, du rakk du mag du lenn après nga dem di tafu ci moom et puis est-ce que bu continuer noonu moom du dem ba Moustapha mën a dem bàyyi ka fa aussi loolu moom mooy sama question ci biir maîtresse di leen jéggalu nag di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. asalaamaaleykum wàllu xew tv ma mag leen di nuyu si suba gi di leen siyaare di nuyu ñëpp nag bàyyi ma kenn di bëgg a ñëw wax si série bi jàll am na solo trop neex na trop waaw na trop trop waaw waaye meram nag moom mu ngi bëgg a bàyyi loxoom de meram dafa war a em toog place di dugg si luñ ko duggloo lu sa yoon nekkul sa yoon nekku si moom nu laal la màndoo si affaire am noonu la war a màndoo si affaire yi laal la waaye moom su ñëwee rek di parax paraxi rek di wax luñ ko wax loo wut bu mu ko doon wax loolu nekku ne daf ko ko doon nettalil wala daf ko ko doon bugg ko kon xam lu nekk si laal la yooyu moom daf ko wax rek ne ko feebari laal la bi moo ma jaaxal loolu rek la loolu la waaye moom mu dem rek parax rek naan ko nii na leen na nit ki da nga war a nekk lu nekk sa yoon nga dugg si yow dañ la emale moo dafa war a em moom moom nga xam meeram daal xamul bët moom xamul bët nit ki nag da war a xam bët xam fuñ la emale xam luñ la waxut waaye moom daal xamut lu bëri mais meeram daal xamul dara xamul dara billaahi wallaahi la moom lu mu def moom noonu la very good baax na trop waaye mere moom dafa xamul bët moom dafa war a émale boppam gannaaw dañ ko émale na em mu nekk ci affaire am lijjanti soxlaam bàyyi laal la gannaaw laal la moom ndax ko bàyyi tuutali moom na bàyyi laal la du moo gën waaye mu nekk ci mbiri laala di lijjantee ko def lu nekk lu muy def laala laala safut loolu dara safut ko ci kon moom tam du mën a toog palaasam mu sëy sëyam seere see boppam mu jeex te ku nekk nekk ci li nga nekk very simple ñëpp am jàmm salaam waaye lu nekk rek mu ne moom dafay lijjantee yooyu moom dafa wane dafa defar waaye dafa bëggu gaa yi jiboo waaye bëggu gaa yi jiboo de dafa nekk di kokkali lan la lool la waaye mère Diagne tamit keneen la sa doom tamit nga bëgg koo def loolu ah meeram de moom mooy loolu mère Diagne tamit daal moom dara la moom moom moom bëggul meeram laala la bëggu moo tax mu bëgg a génnee meeram waaye na ko bàyyi rek naa seen jabar doomam bi bëggu na ko kay na dimbale doomam rek meeram moo war a toog em régler boppam. xam lu mu war a def loolu la ba pare kii gi nga lu ko xaritam bi wax amisa lu mu ko wax dégg la ko dem ne ko yow looy lijjanti looy dem di seetee ko feebar doo toog sa toog lijjanti sa bopp xam nga loo war a def pour comme lu mu ko wax noonu nat nat defar boppam pour seex respect ko waaw lu ko seex def yëpp lu mu ko gédde yëpp moom moo ko def de waaw dafa tooñ seex parce que xam nga loolu dafa mel ni da dafay nekk di ko nettali si mbiri laal laal yooyu te seex waxeewut ko noonu waxeewut ko noonu théâtre bi moom am na solo torop torop torop waaw kii tamit lu wax tamit kontaan naa si trop Jalika nit ki moom soo ko buggee da ngay bugg ay doomam ñi ne ganaar soo ko buggee da ngay bugg nenam yi doomam yi waaw wax loolu la de ànd naa si torop te kontaan naa si waaw du amaate yeneen doom yoo xam ne ñooy mag doomam yii nii fu munti dem doom yi ñooy mag kon nag ku ko bugg da koy buggaale ak doomam yi soo ko buggut soo buggut doomam yi nga bàyyi ko mu demal boppam loolu la rek waaw doo mun a buggu nit ki ba pare nga ne bugguloo doomam yi loolu mënut a nekk te day doomam yi du mun a am doom yi ko mag lu mu métti métti doom yi ñooy mag doomam yële kon na su fekkee daf koy bugg daf koy buggaale ak doomam mi waaw si sista kii boobu noonu maki bi lu muy lu muy def nekkul lu ko rek parce que moom brodam bi bugga na nit kay na ko si jàppale rek loolu amul benn solo nit am na doom loolu loolu du benn amul benn problème waaw xëy na yàlla su su leen su leen boolee ñoom ñëpp dinañ mën a nekk ñoom ñëpp waaw nit ki moom soo ko buggee moom defal doom mi comme sa doom rek waaye waru koo naan ko yow soo takkee kii tamit kii dafa am ay doom lu nekk noonu la su doon loolu la kon nit ñi seen sëy yi am problème tas kon duñ amaat jëkkër bi ku si am doom rek du góori bi nga takk kon kenn du amaat jëkkër hmm? lu mu ko xelal moom du xel parce que moom dafa war a seet ne su doon moom la suñ ko ko defee du ko neex kon waru koo def keneen tamit waaw. ba pare tam yaay ji tamit lu muy wax tamit loolu nekkul loo xam ne lu correct la wax dëgg ne yàlla kontaan naa si torop torop torop kontaan naa rakki tamit maire bi lu mu ko wax tamit dëgg la waaye meer bi tamit war ko waroon na ba lu métti métti na ko wax dëgg bi rek rakki mu xam naka la mu xam lépp ku doon te problème yi mu doon jànkuwante yëpp du si egg waaye lu mu looloo tax ak ba pare mu koy def lu bon yooyu noonu looloo tax rakki tamit mu téye fu mu téye ba léegi waaw loolu rek la maa ngi leen di jaajëfal lu bare bari di kontaan ci série bi am na solo trop ñu ngi siy déglu di si jëlee xel di si jëlee lu bare bari kontaan nañ si trop daal di leen ñaanal lu bare bari laay. asalaamaaleykum waa lu xew TV ñu ngi leen di ziar leen nuyu bu baax mu ngi noonu di jégalu yéex a dugg rek ñun fii dañ koy seetaan day taar donc mu ngi noonu. Eh, man daal ma jàngat si eh, série bi passé nii ah macha allah daal waaw si kaw si kanam rek la ngeen def rafet na nice na waaw a ah, nañ accéléré la cadence ngeen la cadence la cadence <laughs> démb moom ah macha allah euh, kii yeewu na nuñ koy waxatee laal la laal la moom elle a bien réveillé ah tagalu na macha allah toog. ah noonu la voilà mais nag euh, merem déconné na daal waaw merem moom fiñ ñu ko dul séentoo rek fa lay arrivé merem daal merem daal a ngi noonu rek <laughs> ah waaye sa jëkkër kenn du ko def noonu waa jëkkër sanga la ah ah fa dëgg yàlla ah loolu waru ko woon def nag waa lépp baax na da si jàngal la rek la bokk nag waa si jàngal rek moo lay wan ne jigéen day teey xam nga mu ngi mbaj jëkkër ji noonu tourné dem jëkkër ji offrir ko même même bisou voilà mu ngi noonu. voilà mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm daal macha allah daal continuer leen noonu mu ngi noonu man Jalika moom Jalika moom lay film bi moom kii série bi metti na si moom trop jamais du bonheur jamais waa metti na trop nag waa loolu moom yëpp ay tolof tolof yi àddina la mu ngi noonu mais c'est bien au moins moom la ra rox rox roxi Racky waa Racky yaay ji moom au moins euh, avoué na mais avoué wul carrément dafa ma ne am na lu muy làq tamit waaw moom daal leerul suñu boppay daal waa man euh, cliqué naa dégluwaat dégluwaat mais daal maire bi daal waxuñu fi dara dara dara lu leer daal des na am na lu leneen lu muy nëbba waaw mais c'est bien ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw euh, c'est bien si kaw si kanam maa ngi bañ a guddal. merci beaucoup bonne continuation. ah Bijou Marème man la sa tata ca Suède ah, waaye sama Bijou nag euh, li nga def ëpp na de bii moom li nga ciy def dafa ëpp kenn du mbéj sa jëkkër jëkkër bébé la bu la tooñee nga mer bu dikkee baalu la nga baal ko te yàkkamti toujours da yàqule gisuloo yow liñ doon xëccoo. moom mu ngi la defal sa bos ci tiroir bi ah? nit ki daal toujours da ngay yaay sama bijou nag waaye dëgg dëgg dëgg dëgg ma marem daanu nga be bi yoon moom daanu nga ba pare yow ba nga demee ba jàkkaarloo laal la li nga ko waroon a wax mooy laal la nga ah, fan yi gisuma la nga yëngatu walla ngay wàcc si suuf mbaa du dara mbaa feebaroo waruloo jaar sax si feebaroo ne ko rek mbaa tawatoo parce que naa laa gis ngay yëngatu ma ne xaaral ma ñëw seet la foofu rek nga waroon a yem parce que warul loo ci wax rek dina ne seet moo la ko wax ok ba bàyyi